ni leen ko waxee saa su ne ñi ngi fii ci euh, terrain cosaan ah gis nga ñi ngi ni ànd ak maire bi mi ngi nii moom it di xuus ci ndox mi ñëw jege ñi nga xamante ni ñooy habitants yi nga xamante ni ñoo dëkk fii ci terrain cosaan moom monsieur le maire bi nga xamante ni moo nekk fii ci Pikine Ouest muy loo xamante ni gis ngeen foo xool fu sa bët yam ndox la muy muy muy lu doy waar te aussi di lu metti ndax ndox maa ngi ci biir kër yi ndax ndox mi ak kër yi dañu euh, euh, da dañu sorentewul ndox mi dafa kawe trop trop trop ba ci buntu kër yi ah ndox mi da ciy dugg moom monsieur le maire gis ngeen ko mi ngi nii mi ngi def chemise ak super sang waaye gis ngeen ko mi ngi ci biir ndox mi di xuus ah ñëw ngir wan jagañaale yi wan ni leen li nga xamante ni moo dal seen kaw ni mu leen méttee moom it noonu la ko méttee monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nuyu mbokk internet yi nuy topp ci Sénégal 7. asalaamaaleykum maa ngi nuyu équipe bu Sénégal 7 yëpp di leen eh, ziar. Euh, te di nuyu vraiment équipe bi ngeen àndal yëpp di nuyu tamit population yi ñu fi fekk euh, di bokk ak ñoom vraiment euh, difficulté yi nga xamante ni ñu ngi koy rencontrer en ce moment là. waaw monsieur le maire nu ñëw fekk fi chantier yi fekk fi oto yi ñu taxaw fekk fi ay suuf ak lépp muy loo xamante ni jàppoon na ni xëy na liggéey la boo xamante ni doon ngeen wàcc ngir lii bañ am lan moo yéexal liggéey bi ba nga xamante ni inondation bi ñëwaan na ci quartier bi. waaw dañuy dañuy dañuy commencer d'abord ah par euh, vraiment euh, voilà donc interroger l'histoire parce que fii euh, ku ko xam-xam ni bi cité bi nekk avant sax cité bi la ñuy wax c'est un point bas point bas donc bu ko waxee mooy ndox bu jugee ci foo xamante ni moo gën a kawe ci fu gën a suufe la jëm te fii dafa bokk ci Pikine la sax la ñuy wax fi gën a suufe ci Pikine mën nañu wax ni zone bi bokk na ci donc bu fekkee dafa taw euh, ndox yi nga xamante ni vous pouvez le voir boo xoolee sax descente bi di nga xamante ni euh, ndox yi dina jóge fu sori ñëw ñëw fii fii réceptacle d'eau la surtout l'eau de pluie donc loolu moo waral euh, chaque année dañuy rencontrer difficulté yoo xamante ni vraiment métti na métti na ci ci habitants yi métti na aussi ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy pratiquer sport fi muy terrain bi métti na ci surtout élèves yi nga parce que les école Kabir Mbodj la Euh, élèves yi nga xamante ni euh, ci école boobu la ñuy jàngee mais aussi même durant l' année scolaire da nga gis ni humidité bi dafay nekk ba tey donc aujourd'hui euh, loolu mooy situation actuelle bi dañ daan gis nag à chaque fois parce que loolu lañ fi mës a gis ay moto pompe la ñuy teg bon on fekk fixe que fixer les conséquences du problème parce que problème bi aussi bu fekkee yaa ngi indi ay moto pompe à chaque fois baax na nag parce que dina soulager population bi mais li gën a gën a li gën a indi une solution qui est pérenne mooy surtout ñu def de telle sorte que ndox mi di ruisseler normalement di dem donc euh, moom mooy projet bi nga xamante ni euh, ñun biñ ñëwee wax fa dëgg yàlla la première chose parce que xamoon nañ fii day am problème que biñ toogee léegi yàggul nag mais xamoon nañu ni fii day am problème comme daaru ni muy amee problème comme euh, nu mu tudd daagu daan ni muy amee problème comme yeneen gox yi ni ñu amee problème donc ce sont des points bas yi nga xamante ñun recensé woon nañ leen te bi ñuy aussi ñëw ci population bi waxoon na effectivement lii bokk na ci problème yi bi ñu toogee tooguñu xaar mu taw en réalité parce que dañu contacter waa Promoville waa Promoville nga xamante ne ñoo ŋànk projet bi nga xamante ni c'est euh, dañu war a teg fii benn canalisation eau pluviale bu war a euh, jël ndox mi à partir du point ba mën ko mën koo éjecter tout simplement fi nga xamante ni euh, donc moom mooy lac bi moom mooy voilà donc fi ñu defee maraîchage yi mais du laal tool yi normalement dafa war a dugg fii fi nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy si dex bi donc loolu mooy projet bi projet bi nag yàlla dafa def euh, biñ koy commencé pratiquement mun nañu wax ni euh, c'est à un mois voire deux mois donc de la saison des pluies loolu moo waral actuellement engins yi yéen a ngi leen gis na le commencé woon nañ gas donc gas nañ une portion mun nañu wax ni mi parcours wala plus même gas nañ ko aujourd'hui te loolu moo ci gën difficile ci ci liggéey bi moo ñu gas de telle sorte que dinañ mën a teg conduite yi yi mën a jël ndox mi yóbbu ko donc aujourd'hui euh, li nga xamante ni moom mooy mooy situation bi mooy loolu travaux yi boo dee xool ah, en ce moment là sax boo deful nank dinañ ko suspendre pendant un moment le temps que ñu évacuer ndox mi pour mën a vraiment continuer travaux yi euh, donc ak société bi nga xamante ni moom mooy Promoville nga ko léegi bi nga ñëwee toog euh, yàggul ci bopp maire bi waaye gis nga ni saa su ne euh, nguur gi gi nga xamante ne moom ngeen moom ngeen fi fekk ñoom waxoon nu génne nañu budget bu yaatu boo xamante ni mi ngi jëm ci wàllu inondation tey bi nga ñëwee gis li ndax loolu saa su ne dañ koy defalee Sénégalais yi wala lan lan mooy problème bi ba liggéey bi yéex nii inondation nu ko fii gisaat mu bare lool waaw xam nga <laughs> chaque année di nga dégg plan Orsec ñu génnee xaalis bu dul jeex di ko si def gis. d'un côté mais de l'autre côté li ñu gis aussi ce sont des faits moo nekk nii donc am na loo xamante ni jarul sax ñu koy expliquer et ce des années une douzaine d'années ñu ngi wax Orsec Orsec maintenant Orsec bi fi nga xamante ni mën nañu wax ni bokk na ci këru banlier muy Pikine ah ñun de lii lañu lii la ñu gis wax fa dëgg yàlla waaye loolu nag du ñu découragé parce que ñun municipalité la ñu yore dëgg la canalisation nekkul suñu compétence waaye maire buy toog naan canalisation nekkul sama compétence du croiser les bra man dama damay yëg damay comprendre ni xamuloo li nga xamante ni moom lañ la fale ndaxte mu nekk sa compétence mu nàkk ñu nekk sa compétence am na loo xamante ni war nga ko dox te ñun tànk boobu la ñu taxawee bi ñu toogeeg léegi euh, kër gi nga xamante ni moo yore problème mu assainissement muy ONAS man mii def naa le tout et maa koy remercier de passage demander ko audience audience boobu bi ciy dem on une évaluation de tous les point lii ñuy wax ni bokk na ci directeur DG wu ONAS bokk na ci point yi nga xamante ni on a discuté sur sa table euh, ba mu yebal aussi équipe bi nga xamante ni ñëwoon na il quelque a semaines ñu mën a def euh, le tour pour ñu mën a def une évaluation visuelle mais techniquement aussi ñu mën a xool yan solution dëgg la euh, loolu c'est une partie boo xamante ni dem na ñu ngi xaar nag ci ñoom wax fa dëgg yàlla facilité bi ñu am ba mu ba ñu mën ñu dalal ba wax ak ñun ñu ngi koy remercier bu baax a baax monsieur Mbaye euh, loolu tamit la ñuy xaar ci këru liggéeykaay googu pour ñu mën a jàppale aussi euh, problème yi rencontré fii nga xamante ne mooy suñu commune muy Pikine Ouest en particulier mais aussi de façon général ci département Pikine bi yëpp ñu mën ñu ci jàppale mu nekk loo xamante ni vraiment euh, ça sera des réalisations voilà loolu vraiment ñu ngi ñu ngi ciy ñaan ñëpp maintenant aussi ñu ngi ñaan ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi fi nekk parce que aussi li ñuy wax rek ku gox bi soxal yaakaar naa ni doo toog di xaar lu mel nii di nga si jiitu mais ub summi tamit sa mbubbu li nga xamante ni mooy mbubu politique nga teg ko nële pour mun a jàppale population parce que loolu lañ soxla en ce moment là gis nañu ni nag ay xaalis bu dul jeex parce que ñu ñu ngi ci ay élection législative quartier boo dugg mun nañu wax ni sax ñu ngi romb benn kër euh, bu du ma dugg tur ñu ngi wax ni guichet automatique baa ngi ne Parce que nous distribuons des billets de banque comme ce n'est pas possible, parce qu'on se, on, on se rapproche des élections. Et c'est la Je pense que ce qu'on doit faire, c'est souffrance population, la vie est na personne du peut pas dire euh, le problème est beaucoup. Fépp foo ko rek metti na je pense que foofu la ñu war a orienter les fonds yi nga xamante ne am nañ ko Sénégal mu néew mu bari ñu mën a yëg aussi ni ñoo ngi soulager population bi waaye su demee nii dina néew trop nga gis fi fii Euh, responsable boo xamante ne day toog fii di bàkkoo pikin naan damaa bëgg defar waaye moment yu mel nii nag la ñuy xam ñan ñooy ñan voilà donc loolu vraiment ñu ngi message bi mi ngi dem ci ñëpp lépp képp ki nga xamante ni da nga taxaw pour Pikine soxal la ci moment yi lañ ko gën a soxla wax fa dëgg yàlla loolu ñu bëggoon lancer message yi fi ñu jeexalee rek mooy incha allah travaux yi nga xamante ni euh, donc Promoville commencé nañ ko ñun duñu leen may jaam benn yoon xam naa sax dinañ wax ni sonal naa leen voilà mais loolu mooy sunu loolu mooy sunu rôle bu nekkoon sunu loxo rek la nekk réalisé nañ ko bu yàgg comme ci ñeneen loxo lañ nekk duñ leen may jàmm nag wax dëgg yàlla de telle sorte que lu mel mu nekk vraiment projet boo xamante lii la Pikine soxla en réalité te lii buñ ko xasee réaliser incha sunu doom yee di jàng fële ci école bi sunu administré yi nga xamante ne ñoo utiliser terrain bi sunu sunu yi nga xamante dëkk ci kër yi boo xoolee bu ñu baarewul ndox ce qui dire que ndox baa ngi dugg seen biir kër am na ñoo xamante ni ndox ñi ngi seen biir saal yi te loolu dafa metti je pense que foofu la ñu war a xoolee foofu la ñu war a concentrer les énergies foofu la ñu war a concentrer les moyens foofu la ñu war a concentrer les projets donc loolu la ñu bëggoon partager ak jërëjëf waat